li ñuy wax des fois Kumba Gawlo dafa xaw a compliqué Kumba Gawlo compliqué wul dafa doon nitu dëgg te Sénégal boo fi nekkee nitu dëgg doo bari soppe Sénégal dañoo nekk dëkk boo xam ne nan ko oyofal nii rek naa naa ko hypocrite comme ñoom foofu lañ toll comme yenn animatrices yi wala animateurs yi nga xam dañoo hypocrite mm. nañ na hypocrite ak ñoom parce que li ñuy wax showbiz hypocrisie la mm-hmm. da ngay hypocrite am li nga bëgg non non non mais c'est vrai nañu waxante dëgg Kumba Gawlo daf ma koo bëgg xam nga lu tax ma bëgg Kumba Gawlo Kumba mm. Gawlo dafa direct nii la def mooy bu bëggee wax lii da koy wax nii carrément te Coumba Gawlo am nañu ko bëgg parce que personnalité ma tax du dëgg mais daf si am yoo xam ne dañ ko war di ko wax Sénégal nan ko rafetal gis nga rafetal boobu ñuy wax ay xol yi benn la benn bopp la nekkatul benn benn bopp animateurs yi dañoo am seen ay xarit animatrices yi am ay xarit ñenn ñi ci ñi ma ko war a wax je pèse bien mes mots ñenn ñi ma ko war a wax ñi koy def nan ko arrêté parce que nit ñi xam nañ leen ñu ngi leen di démasqué. clan clan yi ñoo bari. mais man yàlla dimbali na ma ba awma ci kenn ak xaar ma yàlla kalan du dëgg ñi ngi may teg alhamdulilah